la vie tout euh, mi ngi noonu kon nag ñu def rek ku ci nekk fa nga toog doon xaar li nga xamante ne mooy euh, seetu bi tey pour mën cee gis sa bopp bëgg cee bëggal sa bopp euh, duñ def rek lu dul di leen jaajëfal yéen ñëpp ku ci nekk di la nuyu nag di la. tatagal comme ni ko album bi waxee ñu ngi leen di tatagal tey nag li nga xam ne moo nekk actualité presque rek ci loolu la ñuy wax muy euh, le 12 bii ñu romb albumu Youssou Ndour bi nag daal di génn ba mu génnee nag nit ñi dañ ko doon xaar ak doole doon ko xaar ak xel waa macha allah ak xol ak yéene mu ñëw nag ñu daal di ko xool nit ñi daal di ko tas li xale yi naan euh, bul ko saam da nga koy tas ku ne jël sa wàll moo tax ba mu ñëwee nag sénégalais yi dañ ko accueillir macha allah daal di ko tas nag ku ci nekk jël ci li nga moom ak li nga am man dinaa leen wax bi ma ci tànn waaye yéen tamit soxla naa seen xalaat ku ci nekk lan nga ci tànn waaye tamit euh, Sénégal partout dans le monde gis nañ ne fi mu ne nii euh, Thione Seck bi moo nekk number one c'est normal c'est mon père hmm, Thione Seck ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaree àjjanal firdawsi nee naa la Youssou du ko miis ba àddina di tukki c'est normal comme tout le monde ba tax na bañ xoolee ci euh, partout euh, réseaux sociaux yëpp dañ gis ni Thione Seck bi moo nekk number one waaye après Thione Seck bi ku ci nekk nag am nga sa préférence tànn nga ci li nga xam ne mooy sa euh, son préféré ci biir album boobule 12 titres yi man am naa ci dinaa ñëw wax leen ci waaye tamit dinaa ubbi li nga xam ne mooy euh, téléphone bi euh, waaye tamit dinaa leen wax yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg album bi toog seen i biir kër jaaxle ñëpp am ko te yéen amu leen ko dinaa leen wax fi ngeen mën a amee album bi parce que ñi ngi nii tey euh, cosaan kenn amul foo jaar ndax ñëpp a ngi cosaan di jënd si album bi cosaan a ngi fees dellu fi mu nekk nii pour mën a am li nga xam ne mooy albumu Youssou Ndour bi nee naa la koo xamante ne bu génnee ren bala moo génnewaat yàllaa xam rawatina albumam bi nga xam ne douze titre la euh, jël nag li nga xam ne mooy temps yëpp def ko ci pour bégal ay soppeem bégal ay ñi ko bëgg ak ñi koy topp ñi nga xam ne bu yuusu toogee sax dañuy mer yuusu génn nag rayante di fanaan studio chaque jour génne leen douze titres ci biir album bi ñëpp bëgg koo am ci seen i oto mais ñëpp bëgg ko di déglu ci seen i téléphone mais non seulement créer ngi toj ñi bëgg am album bi daw si leen ngeen ñëw cosaan parce que fii kenn amul foo jàll bu ngeen ñëwul tayit suba ñëw leen danaa suba ba heure bu leen neex ñi ngi cosaan pour mën leen a jaay li nga xam ne mooy albumu Youssou Ndour bi bu fekkee ne am nga biroche doore ci sa wet mën nga fa dem dinañ la mën a jaay album bi hypermarché exclusif euh, exclusif mën ngeen fa dem euh, mën nga fa am album Youssou nduur 12 titres bi euh, bu fekkee ne am nga saveur d'Asie mën nga fa dem mën nga am li nga xam ne mooy albumu Youssou Ndour bi fi ngeen mën a dem daal bari na mën ngeen dem euh, TFM Almadi mën ngeen fa dem pour mën a am album bi dégg naa TFM nag ma ngay toj moo tax ñun ñu indi ñu fii pour ñu mën a def émission bi ngeen mën a békk waaye fii it ma nga fees dell buntu bi pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a am ci album bi kon ñëw leen TFM wala ngeen dem ca Medina ci RFM di ngeen mën a am album bi pour mën koo déglu attentivement ku ci nekk tànn ci sa morceau préféré waaye tamit mën ngeen ko am par internet bu leen neexee ci kanam tuuti dinañ ci ñëw parce que Wave mën nga ci jëndee sa album waaye tamit Free Money ak Orange Money dana ñëw euh, lënd incha allahu rabbi nee naa leen lii yëpp ci euh, kaf ak ree rek la xaj pour mën leen a bégal ndax euh, ki bàyyi ñëpp ne yow laa bëgg mënoo lu dul di fanaan studio génneel ko 12 titres mu tànn ca ba ko saf man nag dama tànn mool bu fekkee maawoo mën nga ma ko may après mool it am naa beneen muy fayboor lii daal laa ci jël man li ci des nag nit duñ la jox lépp nga jël lépp. sañ naa tànn mool ba pare tànn fay bor yi ma ci tànn yëpp nag après dinaa expliquer lu tax ma bëgg ko ba tànn ko ñu dem déglu ko. ñaar noonu mool ba dem na géej ñu ciy nuyu nag mool yëpp comme ni ma ko bëggee rek noonu la ko képp ku euh, bëgg nit ko am jom hmm? man sensation bi ma am aw ma xarit buy napp aw ma mbokk muy napp ah waaye li tax ma bëgg ko mooy dama xam ne mool yi ñoo fi mën ci àddina ndax da di métier boo xam ne métier noble la yow yaay dugg ci biir ndox mi pour jàpp lu nit ñi war a dundee te àddina il faut que ñu lekk pour mën a taxaw il faut que ñu lekk pour mën a dund kii nga xamante ne dafa jël bakkanam tayle ko pour ñun suñu dund kooku bu ñu ko woyee macha allah mérito na ko man looloo tax ma bëgg ko <laughs> te nag damay dugg ci tiktok bi di gis mool yi li ñuy decc ay temps seen gaal yi këpp am ñu rëcc ay temps ñu yëkkati jën bu ñu àttanul pour ñu dugal ko ci gaal gi dafay metti ay temps ñu dugal seen ndugg yeeg seen gaz yi ci biir gaal gi pour togg gaz bi explosé gaal gi tàkk loolu yëpp defuñu ko pour ñoom seen bopp dañ bàyyi seen i njaboot dugg ci biir géej gi di dem di wuti ay euh, jën pour ñun askan wi moo tax Youssou Ndour gàcce ma looloo tax man mool bi nekk sama préférence moo tax ma tànn ko bokk ma ko kenn di ci nuyu nag lébu yi di ci nuyu ñiy dugg ci géej gi yépp képp kuy nappkat maa ngi la koy jox dama koy dégluwaat léegi mais bala boobu rek ñu dem nag nuyu ñi nga xam ne ñoom it ña ngay jooy ndax bëgg ci album bi te euh, jotaguñ ci li nga xam ne mooy seen wàll ñëw leen fii mbedd maa ngi fees del ñi ngi jaay rek xale yaa ngi nii taxaw groupe ñii ànd ak seeni jabar ak seeni doom ciy cosaan Grand Dakar a ngi mel ni sabara fi xew mbay xoolal li xoolal li fii a ngi fees del ca Youssou Ndour a bëri doole hey yéen a yooyu nag jënd album bi ndax kenn xamul kañ lay génnaat fi mu ne nii yàlla mën na koo xiir mu ne moom génnatul suñ borom mën na koo xiir mu ne fii ak 5 ans kon nag profitoo leen album bi ku ci nekk rek na ko am mu nekk sa. album nga def ko seen souvenir Aïcha mi ngi noonu ñu dem nag nuyu ki nga xam ne mooy euh, Binta Mbaw mu nga Italie di ñu seetaan waa Italie ñoom ñi ngi laaj naka lañ mën a def ñoom ñi nekk extérieur pour mën a jënd album bi loolu dinañ ci ñëw euh, léegi léegi par internet ngeen ko mën a amee dinañ leen wax fi ngeen di jaar ba mën a am album bi yéen ñi nekk par partout dans le monde ci ngeen bokk. ñu dem nag di nuyu ki nga xamante ne mooy ay euh, Aïda Doucouré. ay de joyeux anniversaire euh, par anticipation lundi la anniversaire am di nuyu nag ki nga xamante ne nii mooy Xaali euh, Diop euh, Diop Matar Diop Selli sama GP bu ñaawal boobule maa ngi lay nuyu bu baax a baax booy looy lekk penambe da ngeen jaay album di dundee penambe na ngeen dee <laughs> nit ñi senegale yi ñoo bëgg Youssou nduur fi mu ne ñiy jaay album bi pendambe la ñuy dunde nii lépp rek pour sénégalais yi kontaan ay ca maawo bu fekkee ne mën nga ñoo jox euh, beneen bi nga xam ne man mooy sama euh, li tax ma bëgg ko nag dinaa ci ñëw muy euh, fay bor maawo bu fekkee ne pare na rek nga yokk ko ba mu kawee lool ñu feccandoo ko ah ah maawo Cissé bu fekkee mën nga ñoo jox fay bor bi ñu koy jox nag <laughs> kii ko toog yàq sa àddina maaw yaa ko dolli nii awaa baax na <laughs> waaw ñun tamit nañ profité rek ne ko moom tamit mu jéggal ñu parce que jéggalu na Sénégal yëpp dégg nga waaw waaw yéen a ngi déglu li muy wax ci yonent bi njani maa aussi lii sa liggéey la kii du paa de day paapaalu ndekete ndax lii du woyu paa waa kii tey ñu ko wutal ay mayo taxal ko Baraza mu nekk capitaine de football ah ma ne kii ba pare nag xoolal dafa yeewu baalu na ñëpp ak ñu nit xolal tons dañuy profité yooyu jéggal ñu quoi mais nan ko baalu ay ci mu nekk album boo xam ne douze la boo ci déglu rek ne moo gën a neex macha allah rayante na fanaan studio rien que rek pour seen xol yi neex ndax euh, benn benn nit bu la bëgg jar naa daw ba dee moom nag ñi ko bëgg tax na muy fanaan guddi ak bëccëg ci studio yi ndax Youssou Ndour macha allah bu ko neexoon këram lay tëdd ñu defar son bi mu vocal leen euh, euh, woy bi mu ñu teg ko ci kawam riime mu jàll mais respecté leen. bëgg leen tax na mu génne leen album bi nga xam ne fii ngi fees dell mbedd maa ngi fees dell ñëpp ñëw cosaan pour jënd album bi léegi nag damay joxe numéro téléphone yi ñu ubbil ma téléphone bi ndax man bu ma fi taxawee du yomb xam nga jikkook borom fu dugg bu toogee du yàgg dara da koy fekk si te man maa ngi bëgg a yàgg ci plateau bi sama jikkoo ngi di ñëw maa ngi di leen ko wan nii nii nii <laughs> waa ba pare nag. li ci gën a neex faatu ndigal douze morceaux yëpp amul daray tàngalaat xooñu leen jëqiwu leen ndax nag pendant covid bi yëpp yëpp yëpp ndekk gone gi nelawul dootul paa kenn du ko wax tonton ndax lii di wëyu paa <laughs> ay kii yuusu mii téye leen ko pendant covid bi yëpp macha allah mi ngi studio di bind di defaraat di jekk jekkalaat ba affaire yi macha allah lii dafa gëj am mu génn ñëpp d'accord macha allah dañ koy ñaanal rek yàlla na baat bi wér ndax ñun tollatuñ ci ay naan ko yuusu nag noppalikul tolluwul foofu lii nga génn xam nga ne mënoo noppaliku. léegi dañuy joxe numéro téléphone yi maa ngi ma madame Mbacke Ami Ndaw moom mooy tàggee ci ay RFM waa puis ku nekk da am sa métier ah. su may nuyu Fatou Ndigal dama naan maa ngi nuyu Fatou Ndigal artiste bu mag bi. di nuyu Pape Cheikh Diallo animateur bi tonton Pape Cissé ki nga xam ne mooy créer concept yu baax yi Ami Ndaw mooy tàgge <laughs> mais nag kaay li nga choisir baax na de yàlla na yéex yàlla na yéex mbay ay temps dëkk bi dafa jax mooy tàgge amin ndaw ay ñu joxe nag numéro téléphone yi ndax xale yi ñoom ñëpp a ngi toog di ma xaar pour bëgg a dugg ci antenne bi léegi nag album bii mooy album bi nga xamante ne nii euh, liñ ci defar bariwul dañ leen koy may euh, moom moo am original bi ñu tamponné ci numéro yi euh, def ci li nga xam ne mooy Sodav ci ñi nga xamante ne ñoo jënd ci album yi incha allahu rabbi na ma na wax ak man fii waa ñi nga xamante ne nii ñoo toog seen biir kër bugguñu déplacé wu parce que lii léegi technologie bi dafa changé ba lépp yomb ñii nii dañoo bëgg ñëw rek pour jënd waaye bu la neexee sa kër ngay toog rapidos moo la koy indil numéro rapidos bi dinaa leen ko jox léegi safaka dinañ la jaay ba pare may la album bii nga xamante ne liñ ci defar bariwul pour yéen kese kese la ñi nga xamante ne ñoo jënd par Wave par kër code kër code bi nag suñ ko affiché woon fii ok kër code bi nag mu ngi nii gis ngeen li ngeen di gis ci télé bi euh, carré bu noir bii nii moo tudd nii ngeen di def xoola xaama ubbi sama wave 77 te lundi dinañ am orange money ak free money pour mu yomb ci yéen di ngeen mën a am album bi ak Wave Orange Money Free Money à partir de lundi ngeen di am Orange Money Free Money mais tey Wave moo fi nekk gum léegi mi ngi nii ubbi naa sama Wave léegi nii laay def léegi gis nga xoola lu ñuul lii nekk ci télé bi yéen a ngi koy gis li ci kaw mooy kër code kër code bi léegi léegi da koy laal mu indi la photo man laal naa sama bos xoola maa ngi jàkkaarloog sama télévision nii ma cadré ay ca validé léegi man tamit am naa album bi fi ma toog pour yéen ñi nga xam ne yéen a ko bëgg di déplacé wu bëgg album bi te mënu leen ñëw cosaan baa ngeen di dem TFM wala RFM wala Brioche doore mën ngeen a toog sur place ngeen jënd album bi par Wave léegi nag mu yegg si léegi xaaral ma xool man. yegsi na nii sama téléphone xaaral ma xool ndax dinaa dégg damaa jënd xaaral ma xool xaaral ma xool lii ndax ma it am naa ko ba pare waaw mu ngi tele téléchargé yegsi na dafa gaaw sax nag waaye xaaral ma déglu son bi ba pare nan la mel bala maa dugg ci yooyu yépp sama xaalis laa ci def xaaral ma dëglu problème laay bañ xaa ma yokk waaw waaw xaalis vite fait la tudd waaw waaw waaw waaw dëgg la léegi nag boo ko jëndee ci web bi gis nga euh, euh, son bu am qualité bi ngay am te ba pare da koy jënd léegi commencé déglu léegi doo bokk ki jël taxi di ñëw ndax moom danga ñëw ba yegg si doog koo am mais yow da ngay toog sur place am ko par wave ay ca léegi nag kii nee na ma Amina damaa bëgg a jënd par wave taxawal ma expliquer leen xaaral nii la léegi yow mi ma laaj ne danga bëgg a jënd par Wave léegi nii ngay def dangay dem ba ci sa télé nga ubbi sa Wave bu noir bi mu indil la photo nga tiire da dem ba ci moom nga tiire tak album ba yegg si mi ngi noonu ay ca daw jëndi ko ci écran bi rek écran bi rek nii ngay def da ngay ñëw poussi poussi poussi ba sa télé nga ubbi sa Wave laal lu noir li mu indi photo scanner bi kër code nga ne ko taaj sur le sang ñu jox la ko ñi ngi ànd ak suñu ay partenaire nag ki nga xam ne mooy euh, Mouna Beauté ak euh, Saraba ñi ngi leen di remercier borom diw yu baax yi ak ki nga xamante ne mooy waa ci euh, Hair noonu la Mouna Mouna Beauté cim bu ngeen bëggee beauté da ngeen dem ci Mouna ay ca mi ngi noonu album Youssou Ndour bi fi mu ne mooy promo bi xale bi neena na ma Amina maa ngi nii ci Facebook live bi naka laay def gaaw pour am ko mooy li ma la expliquer da dem ubbi sa wave boo ubbee sa wave nga laal kër code bi nga dem jege sa télé nga cadré lu noir li ba mu net nga tiire validé mu jox la ko fi nga toog nga commencé koo déglu am album bi douze titres yëpp comme ñëpp. ayca dañuy dem dégluwaat ci beneen son mayaat ko ñeneen ñi nga xamante ne ñoom itamit ñu ngi ñuy seetaan ñu bil ma téléphone bi 77 euh, la ku ci nekk wax ma li nga xam ne moo ci sa morceau préféré 78 628 72 86 88 628 22 22 88 600 676 02 02. 88 676 03 03 nga daal di am accès ci man nag wax ma yow it lan mooy sa album préféré waaye nag Youssou Ndour bañ juddoo ba tey day ànd ak ñun c'est ci artiste dara ñaawewul ci moom duggul ci dara saa yu génnee ñu ne neex na kooku nag macha allah ci albumam bu mujj bii mu génn ci li nga xam ne mooy maa ngi baalu ñëpp bu fekkee ni dama leen tooñ lu ma yëg ak lu ma yëgul ñu nit euh, ñi ngi lay baalu ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul ñu ni tamit di ñaan yàlla bàyyi ñook yow ba tey jii lii nga defal Sénégal ñu di la ko fay wala suñuy doom di la ko fay ndax mérito nga ko yàlla na la fi yàlla bàyyi Ndoura Wally Mbergane am nga loo ko bëgg a wax sa nawle la sa nawle gawlo bi jugal neel der ñëpp ngi lay déglu ndax lu rëy lii ku ko génn il faut ñu invité ndaanaan mu wax ci yow. Abdoulaye Darou Mar. waaw waaw. Major Darou Mar. Matar Dia. seen jigéen Youssouf maa jigéen Ndour. waaw waaw. ana bàyyi coro Ndour. waxal ca kaw. bàyyi biraat Ndour ndey soxna Mbuuba yi sa yaay yàgg nga noo bégal. waaw waaw. gi xale ndaw ci yow la nu jàngi yéeg Youssouf jigéen Youssouf maa jigéen Youssouf mari seen maa. Yusuma jigéen way nga lu ne macha allah ey yàgg nga dégg daali du démb du tey yàgg nga dégg daali Amina boobu dañuy tuut billaay Yusuma jigéen indil nañu disk d'or waaw dem na ba bitim réew joxaat na ndaanaa ni seen valeur biram jigi sàmba lat kura musaa su ko paate sàmba la gàññu leen kii moo doonu siree waaw waaw toogal nii kii woy na ma tii de wéy na ma Aïcha ñu ngi ànd ki nga xam ne mooy euh, Fatou Ndigal ñu ni tamit duñ def rek lu dul euh, commencé nag jël téléphone yi bu fekkee ne téléphone am na Mao Cissé ñu commencé nag jublu ci liggéey bi ndax am na ñoo xam ne ñoom tamit am nañ lu ñu ma bëgg laaj mooy fu ñu bëgg a war a amee album bi te ma it bëgg naa cee xam ñi nga xam ne déglu nañ album bi lan mooy seen morceau euh, préféré Mao bu fekkee ne mën nga ma jox téléphone ci 88 628 72 86 wala 88. 628 22 22 allo. ayca ñu daal di dem nag ci euh, euh, déglu nga album bi. déglu naa ko Poté. noo def démb euh, maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. maa ngi lay namm lool. yaa ngi rafet. waa gis nga ko dama ñëw rek xam ne tubarkal la poté Sénégal laa wii si <laughs> faw nu def ba mu baax sama rakk jooju nga xam ne mhm. foo foo toog rek faat ndigal poté sa xarit la dëgg la nga jàpp ci sunu liggéey lool macha allah te nag musuma dem fenn am fa gàcce benn wax rek laay dégg allah yàlla na nga yegg ni yoon amiin amiin di nuyu Sénégal yëpp rek mhm. di nuyu àdduna di nuyu sama fans yëpp xam naa lu gën a sori dinañ gën a wax mayit mhm. ci li ma ne waaye di nuyu sunu papa jooju nga xamante ne mooy Youssou maa jigéen man morso bi yàlla xam na ne barke Serigne Saliou bi ma yaakaar bi ma demee démb euh, ci Saliou Khoule. Mhm. Euh, dafa teg morceau bi. Mhm. damaa jooy wóor na fàllu seen mi ma àndal. déedéet barke Serigne Saliou bi ma yaakaar damaa jooy ndax macha allah Youssou gis naa ne dara dara ñaaweewul ci moom. déedéet te li wax jee fi bari rek waaye mosoo dégg Youssou la mu wax coon waaye la coon wax Youssou. déedéet déedéet allah sunu papa ji ku jar roy ci moom la. déedéet vraiment album bi nice na. nice na kontaan nañ euh, li ñëpp wax la wax moom validé na moom itamit ci euh, bàllaago faramareen bi euh, suñu papa jooju nga xam ne moom la woy ñu koy ñaanal mu xippee àjjanal firdawsi Youssou Ndour di koo xam ne ku bi woon xolam li coon wax li ma ne woon heureusement ba coon toogee Walfadjri ne yuusu musuma tooñ nit ñee ci nekk rek mais bésu musuma def lu ma metti respecté na ma fonk na ma su ma ko woowee daf may wuyu si ma ne ko ci noonu mu mel yow noonu la mel sax ñun employé mi n'importe quelle boo ko woowee mu wuyu la te boo waxee mu ne samay nawle ngeen lu ngeen bëgg bu ma ko yoree jox leen ko nduur yàlla na sa jàmm yàgg lu la waay waxal ci réew mi dala ko sosal ndax ba tey preuve yi génnul bàyyi biraan nduur ay ca ñu dem euh, fa ma tegal ko moom itamit mu déglu album bi euh, maawoo bu fekkee mën nga ko cee jox euh, benn son ba yow ban nga bëgg ci album ma yóbbu la mool. non na ma yóbbu mool mool neex na de sànq li ma gis fii. ay ca mool ma koy may mool yëpp ak lébu yi ñu déglu mool Maodo Cissé moo nekk ci régie bi pour jox ñu ñu déglu mool ay ca. nu tudd. daa julaa waa fàtte woo ko. ngay dem yow yaay tàgge ca rajo ba yaakaar naa du man dong la neex ndekete nee naa la euh, euh, fay bor ak mool bi moom a ci gën a neex yow nga ne mool bee la gën a neex. non mool bee ma gën a neex. ndax mhm. euh, tubaarkàlla Amina yow tamit. Mhm. dafa nekk noobul liggéey bu noobul. Mhm. mool tey sedd bi. billaay période bii rek boo demee ci côté géej gi di nga xam ne mool yi macha allah. maa ngi dégg ci woy bi yuusu naan leen ñaari fan yi muy ngelaw. toog seen kër pour seen sécurité te day ngelaw sax ñuy dugg ci géej te day ngelaw dem ci gi mhm. barki démb maa ngi am ku ma àndal booru géej naan ko xoolal lii nga xamante ne fii day lëndam lool ñu dugg ci géej gi ñafe mhm. indil nit ñi jën noo seulement waaye tamit indi ngir seeni njaboot mhm. mool daal jaaraama mool bu dul woon mool moom sama genre gi nga xam ne sama xarit bi awa seen maa ngi koy nuyu nee na fan ndigal moom noosam yëpp jën la da nga bëgg jën dama bëgg jën man dama bëgg jën man na ne jën rek poisson na nekk jën <laughs> dama ko bëgg dama mës a nekk en état rek dem ci docteur bi mu ne ma da lekk jën bu niin ma ne ko yow dangaa mën a liggéey <laughs> mën nga bañ a retraité ndax damay bañ ko ma tere jën sama benn goro dañ ko mës a tere yàpp mu génn yegg si doom ji ne ko papa nee nañ la bu lekkati yàpp mu ne docteur bi xamul dara war naa mën a bàyyi te yàpp ko yóbbu àllaaxira ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaree àjjana di profité di euh, jaale ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo génn àddina mm-hmm. jege ma lool fan yi ku ci mel ni euh, Xadi Ndaw Euh, naaru biti moom macha allah euh, barki démb la génn àddina mu nekk xale boo xam ne amagul sax quarante ans mhm. yeewu na ba sangu yor saagam di liggéey yi fi mu toog fa la ko yàlla jëlee ñu ñaanal yàlla na fekki ndeyam ju euh, tedd ja ca àjjanay firdawsi di ko jaale toute la famille mbay mhm. di ko jaale doomu bàyyi biti mbay yi ñoom nday mbay ñoom mareem bàyyiwuñu kenn waa kër Seydou mbay yeeg ami ñang ñu ngi leen di jaale seen sët boobu di xaddi ndaw ñu ngi leen koy jaale yàlla na ko yàlla teeru ca àjjanal si di jaale tamit ñoom Aïcha Manka ñoom Mouhamed Diouf ah waa Gambie yëpp ñu ngi leen di jaale euh, seen papa jooju nga xam ni moo génn àddina dadi yàlla na ko yàlla xaree àjjana ci barke Seydouna Mohamed te mu gëj fa ak képp koo xamante ne nii rek semaine bi génn nga àddina yàlla na yàlla xaree àjjana bàyyi fi ñi nga xam ne nag ñoo fi des ñoom itamit bu fekkee ne téléphone bi am na le temps que ñuy dem ci euh, faat ndigal rek ndaxte moom i tamit am na lu mu bëgg a wax ndax moom itamit nee na ma damaa am sama fulla am sama fayda Youssou Ndour génne la 12 man itamit ma topp ci moom parce que semaine bi moom lu fi waay génne rek bu la yeboo xam ni day dem ndax dafa am ñoo xam ne suñ borom moo leen mooñee noonu ci seeni i biddiw la euh, boo toppee ci ñoom dangay yegg fa nga jëm ba tax na moom itamit mu génne Daaba Jula loolu tamit ñu ciy nuyu waa Daaba Kunda waa Touré Kunda famille Daaba yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu seetaan ko moom euh, Fat Ndigal ndax sa nawle bi gis nga album bi mu génne seetaan ko

nekk Daaba Jula bi moom itamit génn na teg na ko ci seen loxo yéen ay soppey euh, faatu Ndigal Fatou Ndigal nan nga inspiré woo euh, Daaba Jula bi da nga am xaritu soose da am xarit rek mu sant Daabo nga bëgg koo waxal yu baax wala waaw Daaba Jula bi boo seetloo musique mandeng la mhm. boo dégloo lépp dinañ ko déglu boo dégloo lépp rek affaire culture mandeng la ak bambara mhm. Euh, ma way ko nag sama soppe boo xamante ne maa ngi ko naan mbiifee mbiifee nag mooy bëgg naa la waaw boo déggee ci wax bi tam maa ngi naan bu dee sa xarit mhm. mbaa koy sëyal mhm. bu la yëgul ñu ree la dëgg la muy sama xarit di sama mag fan nga ñu ko acapellal ñu dégg gitaaraani Bamako mali dee naa yaa mbiifee waaw amina mbiifee mali dee naa yaa mbiifee bëgg na la man bay jooy yàlla xam na ni man bëgg na la yaayu petit lay mbay amina petit yow yu ma ay yeey jarabi jarabi jarabi yoo oh, jarabe bu dee sa xarit mbaa sa kuy bu la yëgul sax ñu ree xarit dafa foor ki la bëgg dafa foor dafay dem ba ca kaw asamaan yàlla validé ko daaba julaayee <laughs> macha allah macha allah sama yaram a ngi daw. Mm. Euh, xoolal kii nee na Amina macha allah Youssou Ndour euh, xoolal fi ma toog moom Adja Lo jaaykatu billet bu mag bi loo siré ma ca ndaam njàmbur njàmbur bi neena na fi mu toog léegi léegi. Euh, ba ma tegee mool bi nee na daf koo ñuluk ba ci saa si la dem Wave jënd ko. Wave nag ma fàttaliwaat ko kii yi nga xamante ne mi ngi ma koy laajaat nee na ma Amina foto naa mais. dara ñëwul waaw parce que da nga ko foto te cadré ko léegi lii ngay gis kër code bi mooy carré bu ñuul boobu noonu nekk ci télé bi da ngay ubbi sa Wave nga laal ci carré bu ñuul bi nekk sa téléphone mu indi photo yow nga photo beneen carré bi nekk ci téléphone bi fi nga toog ñu jox la album bi sa télé ngay dem hmm? waaw ci sa téléphone fi nga toog ci lañ la koy yónnee ci sa téléphone ajaaloo nee na moom Amina mool bi ñulug na ma ba ma dugg ci Wave def li ma wax maa ngi nii di déglu sama son macha allah papa yu dundal rek hmm? Binta Mbaw yi tamit nee na moom i tamit jënd na ko te niveau international la nekk moom i tamit nee na am na ko euh, léegi léegi par wave kii it mi ngi tudd euh, ah ñi ko jënd ba dinañ de kii mi ngi tudd jaaxa jaaxa jaaxa nee na ma foto naa ko mais xaar naa cinq minutes mu soog a ñëw xam naa réseau bi la non non du réseau bi parce que du yow dongu yaa foto du réseau bi du yow dong yaa photo ndax albumu Youssou nduur génn àddina bi ñëpp bëgg ko xam nga ne bu doon fii cosaan la nii nit ñi taxawee di ran kon wéef bi it noonu ngeen di toppantee buñ joxee kii bosam jox kii jox kii jox ki jàppal ni yow boo ko photo di nga ci jot waaw nee na moom xaar na cinq minutes muy soog a ñëw waaw c'est normal parce que du yow dong yaa ko bëgg mariñas nee na ma Amina macha allah kenn du wéef wala kenn du Youssou Ndour léegi laa ko photo am ko léegi waa kenn du wéef wéef dañoo gaaw waaye tamit yéen ñi nga xam ne Orange Money ngeen am ak Free Money incha allah à partir de demain ñoom itamit dinañ ñëw ah fi mu ne nii maa ngi liir ñi nga xam ne ñoo jënd di ma envoyé nii message ci Facebook live bi Ndeye mari Sène nee na ma Amina macha allah Wave jox na ma sama album Youssou Ndour titre waaye yow waa waaw kooku dama koy may ndey Marie yow mi ko jëndee euh, euh, par Wave te nekk ci Facebook live bi may naa la album Youssou Ndour bii. album bi yow mii yaa ko jënd ah? man jënd naa sama album yow Wave nga jëndee man ma jënd sama album man it mayaat la ko <laughs> lii nag maa la ko jox mu nekk souvenir te am na nu sama yaram di tàngee ñeneen ñi dama leen di may poster Youssou Ndour bu mag bii ngeen taf ko ci seeni kër mu nekk souvenir parce que tamit euh, Youssou euh, bu génnee ren bala moo génn déwén kenn xamul kañ lay génnaat dañuy ñaan rek suñ boroom dëgëral ko ni reenu guy mu sax fi dàkk rek ndax muy man di génn heure bu mu génnee baax na waaye moom nay génn rek waaw euh, tëju bi la ñuy bañ ak nekk ci ruq bi jàpp sa ñàmbur di di ko enjoy yow doongu bëgguñu loolu waaye nag fi mu ne nii euh, Ndeye Marie moomu nga xam ne moo ko jënd léegi bind ma Facebook live man tamit jënd naa ci albumu Youssou nduur yi benn bi nga xam ne euh, macha allah Sodave lañ ci def ak code bi nga xam ne mooy wane ni album bi original la Ndeye Marie Facebook live sa album a ngi nii may naa la ko te liñ ci defar bariwul ah liñ ci defar waa ku ci bëgg a jënd rek gaawal yéen ñi nga xam ne da ngeen yor ay oto muy jël sede yéen ñi nga xam ne dangeen yor ay lecteur ci seeni kër muy jël sede album bii nga xam ne original la ñu ne ko defal la ci sodave mën nga koo amee fii ci King eh, RFM wala Cosaan wala TFM yéen ñi ko bëgg bu yeboo ngeen gaaw parce que barewul man nag jënd naa ci benn may ko sama benn fans bu nekk ci Facebook bi Ndey Marie ayca ki jënd léegi par Wave ayca kii it nee na ma kii lu mu wax nii Amina man la Assou Dieng dama bëgg ci album bi torop comment faire mais jënd ko par Wave mbala nga ñëw léegi cosaan ñi ngi fi ayca ñu jël appel allo soxna si wala sëñ bi Amina noo def. na sant Serigne Saliou. yow album bee la kontaan loo nenne. barki sëñ Saliou. ah nenne yow nag sama mbokki taalibe nga nenne. waaw man maay jël ci sama xaalisu bopp jëndal la Fanta Mendi Fanta Mendi la. Fanta foo may woowee Fanta Mendy. ci la comico. Ah, yaa ngi comico. waaw. yow kenn du la jëndal man maa lay jëndal léegi may la ko ci sama xaalis. damaa na. loolu moom kaay ma wax la comme yow laa njëkk a jot xamal ni man may naa la benn album ci sama propre poche. barke Sëriñ Tuuba. barke Rasulillaay. ci sofa yi laa bëgg nag léegi affiche bu mag bii tamit affiche bii ngay gis am naa ci bu mag a mag a mag. dama ko ciy boole may la ko nga taf ko sa néeg dama lay may album may la affiche bi nga taf ko sa néeg. Fanta. <laughs> wàccoo naa ak yow de ah. barke lan ngay ñaanal borom album bi ki génne album bi pour seral xol yi loo koy ñaanal. macha waaye yow maa la gën a bëgg sama xol waay. ndeysaan kontaan naa. ay ca déggante bi xawul neex mais bëggoon naa ko laaj léegi léegi lay doon léegi léegi yow xolal fexeel jot sa fexeel ñiy wax la nooy def pour jot léegi album bi ñu déggante uh-huh. waaw maa ko ko jëndal ci sama poos may ko ko ay ca ay ca ñeneen ñi nga xam ne dañ bëgg ci album bi euh, mën nañu ñëw ci point yi ma leen di limal nii yu ci mel ni Biros Doré euh, RFM Médina euh, TFM Almadi ak cosaan fii nii ma nekk nit ñaa ngi nii fees bi dell ndax album bi ak ñi nga xam ne dañ ko bëgg a jënd par via Wave suba dinañ am Orange Money ak Free Money bu fekkee ne bëggoo déplacé wu nag da mel ni man ker da ngay woo Rapidos <laughs> rapidos xam ngeen ko rapidos mooy indi croissant yu tàng yi di indi cob-cob yi album bi it rapidos mën na la koo jox ci 77 woo leen rapidos ci 77 234 34 12 cag-cag la rapidos ñi ko xamul cag-cag la moto la yor am na oto am na kaar bu ngeen ko woowee léegi léegi léegi foo mënti di dëkk mu indil la ko ci 77 234 34 12 wala ci 33 859 vingt 28 rapidos ah wala ngeen ñëw rek cosaan wala ngeen dem via wave nga ubbi sa wave fu ngeen mënti di nekk bu leen jaxle comme damay bañ ñi nga xam ne ñoo nekk Tamba wala ñi nekk Kaolack sama mbokki Saalum Saalum yi souvent dara di jaay Dakar duñ ci bëgg boole seen bopp te ñoo koy gën a bëgg ndax nit ñu baax ñi ñi ngi ci raison yi mm-hmm. da ngay nekk ba Saalum bëgg ci album bi woote leen rapidos mbala ngeen jënd ko par wave sa lal ngay tëdd ne ko taj photo am ko ci saasi da ngay dugg ci sa wave télé bi gis ngeen lu noir lii wave bi cadre bu noir bii boo ubbee sa wave da ngay laal cadre bi nga ñëw ba ci tele bi nga ne ko taj après nga valider ci saa saasi bala ngaa dellu toog sa album ñëw 12 titres yépp nga tànn bi la saf man maa ngi nii jënd naa léegi ba déglu su ma neexee sax jëndaat ndax Youssou moom macha allah loo jënd ci moom doyut mm. ay ca léegi nag dañuy continuer waat jëlaat téléphone waaye dañuy dem nag nuyu ñoom jaaxa jaaxa maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu nag ki nga xamante ne mooy xaali Diop Diop a juba Aaron ak Roqaye Ndiaye xaali Matar xaali Selli di wax joyeux anniversaire à Amina euh, Ami Cissé depuis Kaolack sama anniversaire demain la ami si sa joyeux anniversaire depuis Kaolack ñu ngi lay wax dundal ba doyal di nuyu nag Pape Aw kooku c'est mon frère préféré madam Diop ñu ngi koy nuyu euh, borom euh, safari madam Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal yàlla defal la jàmm ci sa liggéey ah di nuyu nag ki nga xam ne mooy Baba Diop Baba Diop ñu ngi lay nuyu di nuyu Nafi madame Diop ah Nafi doomu euh, Moustapha Mbuub Nafi bu post ah Nafi ñu ngi lay nuyu bu baax madame Diop bientôt madame Diop incha allah hmm, di wax joyeux joyeux anniversaire à Penda sama euh, gendarme bu ñaawul boobule Penda happy birthday dundal ba doyal ñu xaarandi nag ñi nga xam ne ñi ngi ci wave bi ba tey ñoom it di jënd kii nee na ma Amina jënd naa sama album xanaa neex <laughs> lii kay du neex xëm la aka gaaw te yomb xolal kii Amina waxal ci tele bi nag maa ngi tudd Penda Cuun jënd naa sama album léegi ci wave bi jox nañ ma ko ma déglu ko am qualité son bu neex xanaa neex ay ca ñu demaat ci fàndigal moom itamit comme talent bi dafa bari dañuy mosaat ci baat bi mën a relax pour jàkkaarloo waat ak yéen euh, joxaat leen li nga xam ne mooy euh, fi ngeen mën a amee albumu Youssou Ndour bu neex bi lee mool nag man jël naa ko ku ko jël nag xamal ne ci man nga ko jëlee mais mool sama yëf la te mool bala may ñëw ci faatu ndigal maawo boo ma ko mayee ma dëgluwaat ko day gën a neex fay bor nag waxaguma leen lu tax ma tànn ko waaw dama ko tànn muy sama album préféré yokkal waaw kay love you too ma aussi c'est chéri Amina Aïcha mi ngi noonu bàyyi Mouhamed la ñu àndal neex a liggéeyal bay bëgg a dee xale yi nag xaw ma lan la mais gis nga moo tax bu fekkee ne da nga njaboote ay gone di seen patron séqal ak ñoom jàmm ndax boo sékkee ñoom jàmm nit du ñàkk bés bu leen xeeb sorti albumu Youssou Ndour bi ah même employé yi nga xam ne liggéeyuñ ci album bi seen bopp a ngi menti tey képp ku yore contrat groupe Futurs Médias di tiitaroo Youssou Ndour mooy sama patron rek yaa ngi bëgg a def dara loo xam ne Youssou da koy yëg pour pour jox ko plaisir loolu nag li ko indi mooy macha allah Ndour a Waly Mbergane gàcce ngaa laa ma nee naa la man sama bàyyi tubaab la sama yaay xalpulaar la man géer laa waaye itamit réew mi amatul géwél ak géer ku la defal lu baax nga wax ko te kenn dofut dof dof loo fi ne Youssou ni mu téyee mbokkam noonu la téyee kuy nawleem barki cheikhul xadim di nuyu sa rakk yi ndax nag kenn du toog ci der di jëw yàpp <laughs> loolu dëgg la barki yonent bi mënoo di lekk nen na cuuj neexu la wallaay ñu mbaa bañ zone ba barki sëriñ Touba <laughs> kon dañ lay ñaanal rek yow a xale yi nga àndal di liggéey yépp yàlla na yàlla dugal ci seen xel mi lu rafet loo xam ne defar rek la ñuy def ndax yow nduur kuy defar rek la la yàlla war a booleel ndax nag sa emploi yi plus de mille et quelques employés du TFM rek du RFM rek du L'Obs rek ah du imprimerie bi rek nee naa la nga njaboote Sénégal yépp di leen liggéeyloo te mosoo tardeel kenn nee naa la album bi sax mënoon naa ñàkk waaye nag li nga wax rek xamoo nooy def say fans ma aussi samay ñu fans yi ñu déglu li tax album bi ñu génne ko parce que pendant confinement bi yépp su Ndour nelawu ko tëdd ko bàyyiwul benn yoon ndax mi ngi xalaat ñi nga xam ni ñoo ko bëgg ndax tey boo nee damay bàyyi woy am na ñu muy neex de mhm. yow faatu ndigal boo toogee ne man woykat laa man faatu ndigal bis ni ki tey banaa woy wallaay say noon tàccu wallaay say noon tàccu waaye nag dina am ñoo xam ne da leen di jaral tëdd dem hôpital wallaay sopp yi ñu sopp yi ñoo dul am lu leen kon ñu déglu sopp yi ndax mhm. Youssou Ndour xamal na ay soppam ne leen duma bàyyi benn yoon fa ngeen nekkee laa nekkee mhm. ay ca léegi nag ñu dem euh, déglu ko yokkal léegi loo ci xamul ay speak well well well English am um, speak English. yow kay. you speak English little bit yow dégg nga anglais. ah maa ngi koy waaj a dégg mais dama jàngi anglais. loolu nag laay waaj a léegi damay jàngi. eh Amina yóbbu ma fa ma defi ko. parce que damaa sonn ci léegi nit ñi da ngay tukki. waaw doo dégg ka nga àndal nga naan làkkal ma kii. mu la waaw. nga ne ko laajal ma ko lu lii di jar. waaye nag dégg naa ci give me money. gi waaw loolu mooy jox ma xaalis. <laughs> waaw loolu dama ko léegi nag nit ñi boo leen làkkuloo xam nga nu ñuy def. Ah. dañ lay saagaal ki ngi leen yónni <laughs> ñooñu bala ay ca mi ngi noonu ñuy joyeux anniversaire. Euh, di bàyyiwaat euh, xel rek mool yi di leen wax ne leen euh, album bi am na solo waaye yéen i tamit mool yi. di ngeen jël ci album bi bari na dem macha allah déglu leen ko bu baax ngeen jëfe ndigal li ñu demaat wave kii nee na ma Amina dem naa wave ba jënd. ay ca ñi jënd Wave ñëpp dañ may yónnee message nii ci Facebook live bi ma di leen tudd euh, kii mi ngi tudd jaane Sëy jaane Sëy nee na nuyul ma fàtt ndigal dama ko bëgg lool moo woyoon sama ngénte doom waaw Diané maa ngi koy nuyu. nee na yaa woyoon ngénte doom yow xew boo woyul neexul. non xew xaw mi dañ dama dama koy rëppatal. da koy rëppatal dama koy rëppatal. ba pare la ngay wax nit ñi dañ koy dégg. nit ñi dañ koy dégg ndax parole dafa baax ci artiste moo tax sunu papa Youssou Ndour nekk fi ba tey. xam nga woy li tax mu am solo. nañuy dégg sa baat daf ci am important ndax euh, voix dafa nekk premier instrument balaa dara di xew. dégg nga waaw ma ñëw kon ci jàkkaarloo léegi préparé benn jàkkaarloo fii. ñu demaat ci wéef bi. ay ca ñu jël appel si Cissé maa ngi lay nuyu sama mbokki murit bi. nu ma mel. allo Amina man la Binta Fall yaayu Serigne Saliou. noo tudd. Binta Fall yaayu Serigne Saliou. Binta foo may woowee yaayu Saliou borom julul. maa maa ngi cité comico yëmbal. yaa ngi cité comico yëmbal. waaw yow cité comico 4. lu fa bees. cité comico 4 laa nekk bu yëmbal. yaa ngi cité comico 4 bu yëmbal heure bii lan moo bees foofu. fii lépp a ngi neex. lépp a ngi neex. ay waay wàññi sa télé ma waa noo def ma chérie. Ah, maa maa ngi nii rek di sant Serigne Saliou bu baax di leen bëgg di bëgg tey tam rek te yàlla tax. waxtaanu album bi est-ce que yegg na yëmbal. waaw ñoo woote woon sànq. ah. allo. déggatuma dara bu fekkee ne mën nga maa may ma euh, jël sama client yi nekk Wave fi mu ne nii maa ngi Wave nii di jaay ñi nga xamante ne ñoo bëgg ci albumu Youssou Ndour bi. allo ci nee na ma Amina jënd naa ci album bi. léegi Youssou Ndour na jàmmam yàgg. allo. kii nee na ma Amina man itamit dem naa Wave ba jënd léegi kii nee na moom dafa bëgg xam ndax comprendrewul bu baax ni ma ko ko expliqué euh, léegi nag dangay dem ci sa tele bu fekkee ne maawo am nga téléphone nga jox ñu ko parce que sànq mënuñu déggante ki nekk ci ligne bi léegi yow mi nga xam ne yaa yor Wave da ngay ubbi sa Wave soo ubbee Wave bi am na benn carré bu noir bu fa nekk ah mi ngi nii hmm? ma jël téléphone xoola xaaral ma won leen sama Wave xoola gis nga carré bu noir bi ci kaw moom ngeen am noonu ci télévision bi gis nga carré bi léegi nag man moom laay laal nii carré bi ci carré bi rek laay laal laal mu indi photo gis nga xoola autorisé carré bi moo ma indi lii léegi nag damay ñëw a ñëw a ñëw ba ci tele bi gis nga ci suufu écran bi bi nuroog moom noonu moom ngay dem rek après nga dem def mu validé gis nga amaat naa ko man moom xam naa sama téléphone bi yëpp Youssou Ndour lay doon tey macha allah. léegi nag xam nga lu ñëpp bokk loo ca am na la doy ndax album bi nag macha allah ñëpp a ko bëgg Youssou nduur yàlla dogal na ni bu génnoon ne dama ne rek sax nit ñi jënd waxuma laak nag mu génne leen douze titres yoo xam ne dara amu ci tàngalaat mu jox leen voix normalam musique originale bu am qualité ñu ciy nuyu suñu euh, patron Bouba Ndour ndax moom itamit def na ci liggéey bu am solo man dama ko fonk buuba dafa nangoo liggéey am jom ci liggéeyam ba pare système américain bi muy demee moom ma neex ndax nag macha allah duñu ay ingénieur mais ku ñu xool mën nañ laa décortiquer ah di gërëm it njaga di gërëm Birane ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier mention spécial Bouba Ndour moom mi nga xamante ne nii lii lépp moom la ah ah kan la waaw Bouba Ndour moo produire Youssou Ndour man de Bouba mi Bouba caa yi am na ci lu mu nekk lu bokkul ak télé bi nag eh. mais ndekete deux ans yi nit ñi confiné wu ne ci mbas mi Youssou ngi préparé loo xam ne après confinement la tudd ndeke album bi xam nga nu mu waroon tudd après confinement Bouba nduur en tout cas chapeau mention spéciale Bouba li nga koy gis nii bu waxee ñu ne waxati na boo ko dégloo moo ne wax na dëgg waaye bu duggee ruq bu génnee ngeen ne lii ku ko def hmm. na leen yàlla lafal cat te gën leen a bàyyi ngeen di ànd ay ca te ñu ni tamit yéen a bokk yuusu waaye ñu nit danoo am part yuusu jël leen li ngeen moom bàyyil ñu li ñu moom man daal lii rek laa amoon ci lu may wax ñëpp ko bokk nag non ñoom ñoo bokk ak yuusu dret waaye ñun ñëpp ñun danoo bokk ak yuusu it léegi yéen famille jël leen li ngeen am ci yuusu ku bëgg bëgg naa ku bëggut na ma jox ay ca ñu dem euh, ci téléphone bi alu Wave baa ngi jax nag Wave bi fi mu ne xale yëpp a ngi jënd eh, tey ngeen a wax ñi taxaw fii ran ñu jënd ko par Wave mu gaaw allo allo ki ci ligne bi allo <laughs> wooy ay Youssou Ndour bu amutoon Sénégal <laughs> Sénégal nag bu Youssou nduur amutoon dëkk bu mu juddoo dinañ fa dem rayante ba indi ko fii ndax mënu fi woon ñàkk ay ca lii lan la yokkal waaw waaw demal léegi bàkkaar ba Ndour li mu wax ci fay bor am na solo ñu ni tamit yàlla nañu yàlla bàyyeek moom ba ni mu ñu sagalee ba àddina yépp bëgg ñu suñ borom may ñu mën ko ko fay pourquoi pa mm. lépp bor la lii mu ñu defal bor la nañ am jomu fay ko ko wala suñuy doom ñëw fay ko ko ay ca ci ligne bi alu ku mu àndal rek dina la loo xam ne boo ko fayee dootul liggéey allo soxna si wala sëñ bi ci album allo waa man damaa doon woote ba léegi waa yow la dangaa yàgg ci ligne bi damaa yàgg ci ligne bi am nga loo bëgg a wax am naa la ma bëgg a wax xanaa bëgg yu pour fonk ko rek foo ko def moom. ba mu commencé ba mu commencé ba nga ni yar na xale. yar mag. Mhm. waaw ñu kontaan ci boo amee stress sax dem ba da nga koy faat. billaay ndeysaan. waaw man nag mag mag laa maa ngi ci Touba xaw ma ci affaire yi dara da ngeen maa neex rek man danaa ah, yow de fi mu ne nii xam nga nu ñuy def. waaw. album bii sànq. jënd naa benn ba maye. waaw léegi comme da bëgg Youssou Ndour ba ngay xaleel ba tey. billahi dinaa woyam ba sonn. léegi nag léegi nag tur bi naka la. soxna Yaanaar Ndiaye. ah. Yaanaar Ndiaye. ah jigéen nga. jigéen la baat bi naqari rek damaa nekk mag. <laughs> baat bi naqariwul de Yaanaar Ndiaye bu baax. <laughs> baat bi moo naqari dis na de yàgg nañu ko wax sama xarit bi mm. jaw mais Yaanaar Ndiaye. waaw. waaw léegi nag am na benn affaire boo xamante ne nii xale yi laa ko naroon a may waaye damay bàyyi waa Rési jël la joxal ma la ko. waaw muy poster bi léegi nag waa Rési jëlal leen ma yaa naar Ndiaye moom wax na cofeelam te te du dem ba tey yaa ngi dégg xale yi ni daa am lu Youssou Ndour génne. waaw. est-ce que jot nga cee nan laay def nag léegi. léegi taxawal est-ce que jot nga cee déglu. waaw. ban nga ci dégloo ban laa ci dégloo gën ci lan son yi. son yi waa. man man fecc naa fecc man man man fecc naa kii nu ñu koy waxati. ceeli baaxoon da doon naaw jamono yooyu laa amaatee ba léegi nag. kii nag moo neex kii nag ngeen di jox poster bi. wax na dëgg yow dama kaa sopp ba ma nekkee xale. dama ciy boole ak album dama koy sàcc ventilateur climatiseur sàcc naa ko ba bëgg a dee. waaw yow nag xam nga lu ma lay may. Hmm. damay jëlaat ah. ci sama poos waaw may la album bi ba pare may la poster bu mag. waaw ndax yaa ma ko jaral. waaw ndax yow ceeli mën naa naaw boobu ba muy ñëw boobu man juddoo gu ma fàndigal kon maa ngi ca kees kees laa dëkkoon damaa toog si Touba gi daal di tuub nag jé de nekk si daayira yi fi mu toll da ngeen maa neex waaye ngeen dama koy woo saa ngeen génne dara rek woo naa leen. dégg nga lii Pape Cissé jëlal leen ma ko Maawo jëlal leen ma ko ngeen defal teg moom ayca jël leen ko ay ca ay ayca jox leen ko euh, numéro Pape Cheikh sax nag ndax Pape Cheikh nag réew mi fi mu ne ku ko woo danga ko war a jot ndax moom itamit yàlla da koo nuyu si ku muñ muñ. wallaay muñ sama waa ji yàlla da koo teral. farmata yee liggéey mboose yee liggéey damay bañ catu ko jàllu jéeri yu da dek fàllu xamoon naa ne suñ borom dina la wuyu si bàyyi. Mm. li yuusu wax rek. fay bor rek ay ca mi ngi noonu dañuy dem nag ci jàkkaarloo faatu ndigal bi waaye bu leen fàtte ne euh, kii nee na Amina jënd naa sama album par Wave waaye son bi amatul amatul kay moo tax ñu di leen ko jox nii. kii nee na Amina am naa bi sama sama téléphone léegi. ah nee na moom jënd na ko par Wave mais yegg seegul mais incha allahu rabi di nga ci jot léegi parce que ñi ko jënd moo bari yow boo photo dinañ ko valider. bala ngaa tëdd ci lal di nga jot sa album ci kàttanu Serigne ay ayca kii nee na ma Amina fàttali ñu ah, naka la ñuy def pour am ko mi ngi nii carré bu noir bi Youssou Ndour démbal génn ab album tey laa ko am du sag sag la waaye yow bu ñu la woowee ne la ndax album Youssou Ndour bi am nga ko amoo ko looy wax. donc da ngay xamati looy wax. <laughs> jël leen seen téléphone gaaw ñàkk ba a al am album bii ba pare xam nga léegi. Mm-hmm. nit ñi dañuy kaa. dem mm-hmm. ba tey Youssou la nit ñi di kaa. Mm-hmm. te xam nga booy kaa il faut nga joxe preuve. waaw kon nag daw leen ngeen photo wave bi nii ngeen di def nii. kaa waaw yéen ñi nga xam ne nag yéen a amul wave jaxle bu leen tiit kii nee na ma Amina man su ma amul wave fu may ñëw. su la neexee cosaan waaye bu la neexee bul yàqamti toogal suba <laughs> orange mone yegg si free money di dóor ngay def ni ñëpp di scanner ni ñëpp di am sa ay album ni ñëpp petit lii na dem Poté TV te album bi li ci neex mooy dañ la ciy booleel photo bi biñ la yónnee par web gis nga bi nga. xoola bi nga xamante ne par Wave nga ko jëndee photo album beeg lépp ci biir day mel ne rek yow mu ñëw fii cosaan daal di jënd dem ay ca mi ngi noonu nee naa ko sama waa ji loo génne rek ànd ak moom sag la de. wallaay ndeysaan. ànd ak yuusu mii ah yàlla du ñëpp la ko may moo tax yéen ñi am yuusu nduur te jege ko mhm. fonk leen ko waaye heureusement bañ àndeek moom nag bopp bi baax lool bu ma demoon léegi na ko faat ndigal mm. day mel ne ku la jox raison danaan ah boo loolu la faatu def ok ok ok ñàngal boo génnee pare na ci ndeysaan du benn nopp de li nga koy gis nii kilifa war warta doon benn nopp aka way yuusu nduur daal yàlla na ko yàlla lafal cat mm. ñi nga boot ñëpp nii rek nga mën a mel nduura waali mbergaan te ñi nga bokkal ween góorgóorlu nga ba def leen dara demal ci jàkkaarloo yi xam nga koo may woyal jàkkaarloo mm. ndax man mii daa mel ne am naa xew sax fan yi yow mii de te faat ndigal dangaa bëgg ma bàkk kooku noonu en direct rek waaye en direct a cappella ba nit ñi xam ne bu instrument ñëwoon fii toj ba pare sa dàll yi rafet na noo gis nga yow tamit eh, cocktail da nga def damaa damaa génn damaa génn rek laal côté dàll yi anniversaire rek lay def de yaay dem Amina da nga koo laal rek mu wadd côté daal yi may denc daal dama koo laal mu wadd ma ne ko yaay dem yaay dem léegi nag man damaa ubbi sama téléphone jàkkaarloo keneen ne ko yow laay woo léegi nag ki nga may wëyal mu ngi tudd Joor Thiam mooy anniversaire tey mhm. Thiam Babel Demba Thiam mhm. doomu ndeyu Mot Thiam neel der ci moom jàkkaarloo ma doxee waaw waaw jali jaar amite yaa ngoy fela ngeni amite yaa ngoy fela ami dama koy way fela ay waayi joor caam juddu bu rey ndeeg baay joor caam ñeeñoo la fulak fayda borom daal tar yàlla ji ko kala yar ci boo ko déggalee joor caam bis bi nga juddu woon ñëwaat na taalib taalibi Sëriñ Saaliw nee na naa la wayal woy bu neex ana yaayu saalixa maa ngi nii Sëriñ Saaliw la doyloo borom ñàpp ndal borom xabaar borom ñaari dara yi ci ngaabu mm. borom njowaan ngi ci ron xay ga de borom yu marokuma waj ma ba marokuma waj ma jungo marokuma wajata ma amina nu bakku joor caam waaw waaw amina waaw damay balaa ñoo sori mhm. damay nuyu nag eh, ki jaar ci kanam gi waaw di Kumba Ñang ñangeen mhm. coiffure mhm. nekk ca Géejawaay stade Amadou Bari mhm. di mbartalu di nuyu sama fans yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di wax ne nag génne naa lu bees tàq muy daaba jula daaba jula fa tabarkal la ma teg ko ci marché bi ah topp rek ci ginnaaw papa Youssou Ndour gannaaw mhm. ko topp ci moom rek fa la macha allah xool ci moom xool ci ay liggéeyam fa mhm. la yàlla defal euh, li nga bëgg suñu mhm. borom mooy maye nag yàlla ñu suñu borom defal jàmm képp ku may seetaan moo xam fii la moo xam fële waaye di nuyu sama mag ji nga xam ne moom laa woy ci morso bi muy Fanta Daabu ca Italie dafa am tuuru famille mm. sa numéro téléphone la bëgg mën nañ joxe numéro bi en direct ndax yow ñëpp la bëgg ayca ayca 77 la 778 77 778. 21 20. 21 20. waaw 77 778. 21 20. ayca kii nee na ma Amina maa ngi tudd saara maa ngi dëkk euh, depuis Kédougou. jaaxle woon nañ trop waaye heureusement ba ñu amee Wave dégg nga kii Sara la tudd Kédougou la dëkk nee na Kédougou la tollu. jënd euh, album bi par Wave ba tax na fi mu ne jot na albumam. Kédougou moom doo nga fa amagum album bi xanaa. ay ca kon waa Tamba waa Kédougou waa Kaolack Ziguinchor foo mënta di nekk Bignona mën nga dem léegi ci Wave bi pour mën a jënd li nga xam ne album bi euh, par Wave léegi nag xaaral ma expliqué waat ko parce que am na ñoo xam ne neexu ñoo tegtal dañuy réer rek mu ngi nii Wave bi ubbeeku na xoola Maodo Cissé gis ngeen carré bii xoola carré bi lii nii moom ngay laal mu indi photo gis nga boo ko laalee photo lay indi léegi nga ñëw ba ci télé bi ngay seetaan nga foto carré bi nga laal nga photo ko ci télé bi tag après nga validé parce que li ma jot sànq ci ay message nouvelle boobu neex na ma kii gu la nekk nee na ma Amina maa ngi tudd Sara maa ngi depuis gu jënd naa albumu Youssou nduur bi par wave loolu neex na Sara merci beaucoup yow tamit enjoyal album bi ba mu neex te nga wax ñu léegi ci kanam tuuti sa morceau préféré ci album bi ñu dem nag di nuyu ki nga xamante ne nii euh, mooy euh, mooy euh, Ami Dieye Ami Dieye ñu ngi lay nuyu depuis Facebook live nee na ma Amina macha allah Facebook live mi ngi neex kii nee na ma Amina dama bëgg nga jox ma euh, bi nga xamante ne mooy euh, fay bor albumu Youssou Ndour moom rek laa ci bëgg am naa ko sama téléphone mais déglu ko ak yow dafa may neex kon loolu Maaou Cissé moo koy gérer Maaou Cissé jox leen fay bor bi xale yi bëgg nañ ko de ñu tamit yàlla nañu yàlla may bañ mën a fay bor kii nee na papa you love you forever ayca yokk ko. ni borom lan mooy sa secret yaa ngi mel ni Inde wax naa leen ko ba sonn Chine lady ah, taay bu moo leen nii ku ko bëgg am wala forme bu pop forme bi gis ngeen ko <laughs> ci kanam tuuti danaa jóg ah da ngay dem nag Chine lady gis ngeen faat ndigal temps yi ba mu ko ñamee ba tey bàyyeetul ma nga rafet ba maa wax li kon dem leen Chinese Lady daf leen di rafetloo ba pare jox leen forme yu doy waar seeni graisse lay dindi rafetal leen numéro Chinese Lady 75 la 524 45 45 numéro Chinese Lady 76 422 44 44 ñi ngi ànd ak waa Muna Beauté Muna Beauté yi tamit macha allah diw kenn mënu leen ci ay produits yu mucc ayib la ñuy def pour yéen ñi nga xamante ne macha allah yéen a bëgg des beauté di am beauté fu ngeen toll ñi ngi ànd ki nga xam ne mooy euh, waa Sara ñoom itamit côté karaw lañ fi nekkal waa Sara seen produits yu original yi ñi ngi koy jëlee ba partout dans le monde fu am lu baax dañ fay dem indi ay produits yi pour karaw kon waa Sara ñoom itamit suñuy partenaire lañ ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di euh, remercier nag jeeg bi nga xam ni moo dooleel jëkkëram aji caam la solution borom Grazelia nee naa la am nga ndamal jeeg ndax dem nga bañ lay woowee aji Ibrahima Niang te loolu nag xale yi fi mu ne ñoom ñëpp loolu la ñu bëgg ah ku sañoon ñu la woowee sa tuuru jëkkër bokk ci sa tuur léegi nag moom aji Thiam euh, macha allah muñal na njëkkee liggéeyal goro toppatoo jëkkër bañ koy woowee aji caam la solution solution nag mooy jeeg ji nga xam ne jeeg ju bëgg lu baax ci moom ngay dem mu jox la solution borom Grazelia l'islam 2 Adji Thiam nag mi ngi ci euh, Liberté Sacré-Cœur boo jógee Mermoz droite la lay féete boo jógee fi nga xamante ne nii mooy euh, Liberté 6 euh, gauche la lay féetee dem leen fa ay bijoux yu mucc ayit li ma naan bu ma neexee gërëm bu ma neexee duma gërëm ndax lu ma takk maa ko moom wallaahi <laughs> man daf may neex ma gërëm waaye nag moom suñu partenaire la Adji Thiam macha allah moom moo ñuy jaay ngalam yu rafet yi ñuy takk mm. or yi ñuy takk moom moo ñu koy jaay mm. ba pare nag ñëw sponsoriser émission seetu bi di koo xam ne nag ku mu àndal da ngay nangu ndax aji caam nag defu fi deli jëkkëram da koo gërëm waaye laataa loolu caat la ci ndeyam barki sëriñ Touba ku mu bokkal gërëm nga ko ndax nag ku mu bokkal rek war na la yar ak teggin bañ ko muuree jox ko jëkkëram ji loolu la fa nekkee aji caam yàlla sa jàmm yàgg ba pare nag oor bi muy jaay baax lool ku mu neexul del jaay or bu baax maa la wax li aji caam or bi mu lay jaay du yóbbu du furite kenn du ko ñàmbas garanti l ndax garanti la xanaa maa ngi wele waaye yow Amina loo ci doole. waaye man bu ma sant woon suwaay bi sant ay mbaay ak yooyu. damaa xam man de xam bu la tama daroon <laughs> lii eh, yow <laughs> Aji Thiam ñu ngi lay nuyu bu baax borom Grazilia ak ki nekk ñi fa nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu sama waaja rek Mass Touré moom itamit eh, Mass naka defe naa Mass Touré la de. xam xale bi ma jaay lii mi ngi moom seen gold la nekk maa ngi lay nuyu bu baax a baax moo ma ko jaay yàggul dara kontaan naa ci moom ah di nuyu euh, njagañaa li ma aji am naan boo ma nuyoo nuyul xale yépp ndaxte moom ci defar rek la nekk bu ko neexoon di jaay or ba pare doy waar ndax réew mii ku ci nekk la ngay def doy nga ci waar hmm? waaye moom boo waxee mu ne ñoom ñépp sama jëkkër jëkkëray seen président teñ nangu ko. dafa yaatale kon dafa yaatal kon aji caam jaaykatu or yëpp ñu ngi leen di nuru ci turu aji caam borom graselia di nuyu nag njagañaa mi nga xam ne barki démb la takkal sama doom yëpp ay la mu xaalis. njagañaa loo dundu doyul euh, jaaykatu or bu mag la moom yi tamit. ayca di remercier tamit ki nga xamante ne nii mooy Amélia boroom Amel Beauté. Hmm? Euh, Amel Beauté nag mi ngi Sacré Cœur ku ci bëgg rafet. man meluma nii mais Amel Beauté moo lay jàpp defar la ba nga rafet dem leen ngeen seeti ko ñu ñëw ci sa géer gi nga xam ne ba nga ko waxal lu baax émission bi continuer waaw euh, Amina mhm. euh, maa ngi nuyu aussi tamit sama mbokki Baye Fall yëpp. di nuyu sama sëriñ sa Cheikh Fall ndigal di ñaan mu yàgg fi lool. te amiin amiin ci barke di nuyu sama yaay. di nuyu mm-hmm. ñëpp rek. di mm-hmm. nuyu sama fans di nuyu Aïda ndigal mi nga xam ne ñoo daan toogandoo fii saa soo ma woowee. Mm-hmm. di nuyu waa kër Maam Mourad Ndaw yi rek. di woy benn woy rek da leen ko déjjee. ay ca jox leen ko gaaw. Maam Mourad Ndaw lay jooy. yaa yeween gore ka. nga wëllëre ma lay woo. ndeysaan nañ si Moro Alassane ana Moro Alassane. ma xonn Moro Alassane ana Moro Alassane noobal ngeen pere meer. Mm. yéen neexi maam ma lay woo. wile wile mm. wile Amina déglul ba ma way. Mm-hmm. jogam ndaw ko du bige ñi xana ndaw ko du biige waaw waaw bagala nga des sara koñ ndeene du mbee nga des saña maar mbokkum ndeyum demba borsa mi ci yaruwaay ak ba kër bi mi ci càngaay mbokkumba jogo seen maam buur la sengar jogo buur la senar ndaw koddu bi géen ñaxana ndaw koddu bi macha allah bokkul ak sànni ne adam fa xami ci dam ji makumba jogo seen maam buur la sengar jogo buur la sama wayi mu neex mamuraat kuy sa maam doo jóg yangu dégg nga lii Amina waxoon naa fi ne kati Samba Diallo mhm. ak Yacine Samba Diallo mhm. ak Lena Samba Diallo laaj ma lu ñu bokk Amina lu ñu bokk Lena Samba Diallo moo jur Mourad Ndaw mhm. kati Samba Diallo jur Jaaji Saar Jaaji Saar ndi kumbooj Fara Saar ndi kumbooj Boy Wadd Maram Ceew Koddu Samba ndi kumbooj seen maama waree woon biig Jolof wàcc waalo taaw la fa Jaaji Saar taw barak teg ca farasa taw barak wuy leena leena leen leenaay leena fatu ndigal seen ngéwal moo waaw waaw leen diwal sa loo def ci lii ah! man de kii yàlla na ko yàlla lafal cat ay ca kii nee na ma jox ma numéro Fatou Ndigal macha allah yàlla na baat bi wér numéro bi ñaataat la 77 77. 778. 778. 21 20. 21 20 ay ca yéen ñi am jàkkaarloo parce que nee naa la euh, programme euh, na boroom toll lay toll ba tax na nit ñi dañuy soxla genre Fatou Ndigal yi ci seeni i xew. côté TV it mi ngi fi di leen gunge ci seeni i programme bu ngeen mënti di am. Mm-hmm. Euh, Mouna Beauté tamit mi ngi fi di àndandoog yéen pour seen i yaram ah, ak waa Sara ak ñoom Grazelia pour or yi ak waa Black Beauty Black Beauty nag macha allah yamatuñ ci jaay greffage. Black Beauty fi mu ne dañ lay jàngal xam nga euh, Sénégal bu njëkk Black Beauty rek moo fi nekkoon. Mhm. di jaay cheveux bu baax ba pare di teg teg bu normal. Mhm. te nag nit lu mu yàgg rek gën koo miin ba tax na blague boutique léegi ay formation lay defal xale yi mm-hmm. nekkul ñi bëgg ubbi salon rek waaye ñi nga xam ne dañoo tële sax pour defar seen bopp mm-hmm. boo demee blague boutique xale yi dañu lay defal formation accélérée mm-hmm. nga mën bopp carrément yaa xam da ngay ubbi salon yaa xam pour sa bopp la wala yaa xam loo ci bëgg rek blague boutique boo demee dina la jaay greffage jàngal la naka lañ koy utiliser te am nañ produit yépp pour nooyal li nga xam ne mooy cheveux kon dem leen ngeen seeti blague boutique ñi ngi fii ci Sacré euh, seeni seen i numéro téléphone 77 la 653 44 48 ay ca dem leen ngeen seeti waa Black Beauty ñu de jël téléphone allo allo allo allo Maodo Cissé bu fekkee ki ci ligne bi dafa génn mool bi doyaluma ko mën nga maa mayaat mool bi ma jugee ko rek ak Fatou Ndigal est-ce que mën nga ma may mool bi

la bëgg na ay ca Maawo Cissé nag dañuy gërëm euh, Maawo Cissé mi ñu àndaloon kooku nag moo jàppale artistes yi nag euh, euh, tey est-ce que yaa ngi dégg xale yi naan zéro ba héros barke borom Touba Maawo dañoo yàgg lool damel la Maawo dafa yàgg yàgg a jàkk sunu musique. billaahi séeri Amina yaa bàyyi Mouhamed. Cissé du bon Pape Cissé mii di ànd ak Youssou Ndour boobu ba tey. Pape Cissé ay temps da nga ñëw sax ne ko mu la non àddina boo àndee ku baax da koy jàpp. Cissé mhm. la sant. dëgg la ku sant Cissé mënoo bon. ndax maa nga maa nga bàyyi benn Cissé Cissé bu ndaw ca sama kër. te Saalum Saalum yi dañoo mën lu baax. barke yonent bi demal. déggu réew. Hmm? dégg wàll réew. maa wa nen day ma yow koy bàyyi Mohamed lay wayal ana chéri Amina waaw wuy maawo wuy maawo moo sopp Muhammadu Rasulullahi ba tuddee ko doom moom la yàlla julli ci moom ak i wuy maawo maawo maawo maawo sama salum salum chéri Amina way Amina yaa ak aasi aasiri aasi laay wayal waaw waaw Baye Mouhamed Baye roy leen li ci réew <laughs> maa aussi baatareel wayan aawoog ñaareel amina ñetteel ak ñeenteel barke yonent bi wuy wajee jarul ñaaw bokk wërsëg yaa man lu baax sama rakk ji yow kenn du yow ana yaayu saali xaab maa la bëgg sama waajaa ngi nii doo fekke fun may neewale mukk lu ma xew la yaa cay jiitu billaay xef yi jege xol ya ci gën yaa bëgg waay maawo siise mayal nañ maawo ñoom maawo dafa ma may ànd rek ay ca ñëwal ay maawa siise bàyyi muhammad <laughs> yaa jël sa doom tuddee ko muhammadu rasulullah waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam eh, soppay nabi waay waay ay na sa jàmm yàgg ay waay ay temps xam nga métier. Mhm. donte da ngay fóot sax ay temps nga xaddi bëgg a bàyyi fóot. wallaay waaye dina am lu la téye ca fóot ma. ca fóot ma dëgg la Pape Cissé nag. Mhm. yàlla na yàlla gën koo boole Youssou Ndour amiin Pape Cissé baax na de wallaay daf ñuy gën a soññu di ñu gën a bëggloo suñu liggéey ndeysaan gis nga métier tant que demoo ba di ko tarbilu ba mel ni sa sëriñ rek métier mi neexagula wallaay dëgg la ndax métier dalay daanuloo leer métier daf lay aaluloo ñun nag fi ñu suñu métier mi toll xam nañ ko mais suñ borom mi ko dugal ci ñun moo ñu ko gën a xam yàlla ñu ci jàppale amiin heureusement ñu ànd ak koo xam ni xam na ku ci nekk fi nga toll ci moom ba tax na kon merci beaucoup Pape Cissé loolu yaa ko moom sa mbaax rek lañu lay waxal Cissé ngaar yi waaye nag yow dammel nga barki yonant bi koo àndal mu am ay maami buur yaa ko ëppalay maam téeméeri junni woon te ndamu woo Pape Cissé jaxa Cissé maa dammel dundal ba doyal yàlla na la yàlla bàyyeeg Youssou Ndour ak rakkam ay ca mi ngi noonu dañuy dem rek remercier partenaires yi ku ci mel ni Mouna Boté merci beaucoup euh, ku ci mel ni Sarah euh, waa Black Beauty Adja Thiam euh, borom Grazelia merci beaucoup. caméraman bi ñu àndaloon mi ngi tudd Aba ak Petit Ndoy baayu baayam Petit ñu ngi lay ziar baayu Amina di remercier Mao waaye Soumaré du ñu la fàtte borom ñaari galon yi Pape Cissé mi ñu doon jàppale ci métier mi boobu ba tey moom itamit ak ñi fi nekk ñëpp di remercier sama mag jilee ak Mayte. Ah, bëgg liggéey am jom kontaan nañ ci yéen di remercier yi tamit waa Chine Lady ah gis ngeen uh, ni ma toll mhm. maawo jël ma ci kaw ba ci suuf waaw ku ci bëgg gis nga fan yi mhm. mm, prise de poids bi ñëw na lépp ñëw na mm. dem leen Chine di seen numéro téléphone 76 la 422 44 44 wala 75 524 45 45 Chain Lady ñi ngi yëngal jamono boo fa demee léegi fekk fa ay kilifa dem leen fa merci beaucoup émission bi euh, continuer leen nag di jënd albumu Youssou Ndour bi par Wave même émission euh, euh, télé euh, TFM bu jeexee dem leen ngeen continuer di dem ci Wave bi di jënd li nga xam ne mooy album bi fii a ngi fees dell nit ñee ngi jënd waaye yéen ñi mënta ñëw mën ngeen a commandé album bi par Rapidos ngeen wootee Amina damaa mhm. bëggoon nga nga nga may ma man tam mhm. ma nuyu nag ñi ma àndal ñëpp non du ma la bàyyi du la bàyyi mukk te nuyoowu xaaral ma terminé jox la nga wax ba doyal ah yaay sama mag ay mën ngeen am album bi par Euh, euh, rapidos mm-hmm. mën ngeen ko am par wave mm-hmm. mën ngeen ko am par brioche dorée mm-hmm. comme mën ngeen ko am par euh, saveur d'Asie mën ngeen ko am par Almadies RFM TFM mën ngeen ko am RFM bu Médina léegi nag numéro rapidos bi yéen ñi toog bëgg ñu livrer leen album bi 77 la 234 34 12 yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ko bëgg am par wave da dem ci wave bi nga cadré ko laal lu carré bu noir bi moom lañu naan euh, euh, euh, kër code boo demee nga laal ko nga pousse yi nga photo boo ko photo rek automatiquement dañ lay yónnee album bi yéen ñi jotoon a photo mu nekk di téléchargé du ngeen tëdd ci lal te jotu leen li nga xam ne mooy seen album te album bi buy ñëw day ñëw ak photo bi ak lépp li ci ki ko jënd fii li muy am yéen ñi ko jënd par internet yéen loolu ngeen ciy am kontaan nañ Fatou Ndigal ñu bàyyi li nga gërëm ñu soog a tàggatoo. waaw Amina maa ngi kontaanaat rek di kontaanaat di la wax ne li may ubbee rek laay tëjee di la wax ne man itam Euh, génne naa lu bees tax ñu naan ko Daba Jula macha allah bëgg nag Sénégalais recevoir ko way ko ci way ci way ci bëggante xam nga way ci sama mag jooju nekk itali moom tamit di Fanta Dabo mbokk yaayu Mami daabo maa ngi koy nuyu moom itam waaye di nuyu tamit ki nga xamante ne Kumba Mhm. xam nga artiste amul toogaay dëgg bu ma ñëwee ci salon ba foofa ca géejawaay ña ngeen coiffure en mhm. face stade Amadou Bari mhm. lu muy jàpp da koy bàyyi defar di nuyu xale yi ñoom Ami Collé maa ngi nuyu ñoom Fatou di nuyu ñëpp di nuyu sama rakk nag sama xarit sama manager Fallou Sène maa ngi koy nuyu di nuyu magam Awa seen di nuyu ñëpp rek di nuyu sama fans di nuyu sama doom ji Abdourahmane di nuyu ñëpp jërëjëf Poté kontaan nañ voilà euh, merci beaucoup encore di leen fàttali na leen euh, ki ñu fi may léegi euh, Naar ak Mendy ñoom Naar Ndiaye euh, depuis Touba ak ki nga xam ne moo woote léegi. Fanta Mendy ñoom may nañ leen album ak poster déjà yónnee naa leen album bi ña ngi koy enjoy nii ci seen téléphone jot nañ seen album par message mais du tee bu ñëwee dinañ jot pochette bi ak euh, euh, poster yi nga xam ni man maa leen ko may ah man maa ko jënd ci sama xaalis may leen ko ndax man euh, bañu ma ci xam nga àddina bu njëkk danga daan taxaw ne Youssou Ndour Youssou Ndour ñu ne ñoom Youssou Ndour rek la ñuy wax xale xamul lu dul li mu xam ak li mu miin mm-hmm. rawatina ki nga di wax ak yow ba ba nga ñeme ko kooku mënoo lu dul wax ci moom te nag macha allah ku la am jël ku la ñàkki wuti la ba nga tàmbaleeg léegi ma nga bëgg yàgg te dara ñaawul nduura waali mbergaan doxal sa dox kenn moomul la defal lu la saf sénégalais yee la bëgg def la fii ci seen i biir xol album yi nag yàlla na nekk sa njiglaay mu nekk ay album yi album ci barki Seydouna Mohamed yàlla boole laak ñi ngay liggéeyee ñépp seen diggante yu mel ni mburook soow dara bañ a ñaaw ndax boobu ba tey dara ñaawul yàlla bàyyi laak sa njaboot bàyyi laak say amp waaye ñoom ñi lay liggéeyil suñ borom def leen ñu mel ni Youssou Ndour wala ñu raw ko ci barki Seydouna Mohamed jëf kontaan naa ci yéen incha allahu rabbi à bien bientôt